bismil ilaahi wa huwa rahmaanu wa huwa rahiimu wa azmaanu yow mii may wax ci yow Ousmane Sonko nga sant mbir yi jarul kaanu yaa ngi ci yoon doxal te bul gestu saa feetu jotee rek di nga feetu falyatawakkalil mu'minuuna alallaah ku gëm day wàkkiirlu ci yàlla mi di laax jàmbaar fu mu jógee faaw ñu kar ko waaye dogal bu ñëw rekk nañ ko nangu biddiw du caaxaan ku sa biddiw feq bu ne ràññ ñëpp xam ne daa feq man nag nii yàlla ne waaw rek ma ne waaw te bu yàlla nee waaw ci yow rek ma ne waaw soppee wax ak yow ak di la conseiller xawlul xayri képp moom laa lay conseiller ndax nag ku la jàpp jàppaale ma ndax réew mi moom fu waaye jëm yóbbaale ma ku tedd ki la di waxam ca démb bëgg gi mu bëgg réew mi la waxoon ca démb ak ñi dëkk réew mi di Sénégalais yi ñëpp nangu li mu defal Sénégalais yi ak africain yi sax laay wax ak der yu ñuul yi fu ay mën a nekk ci àdduna ba ci ñu ñuul yi ci yu ñuul yi falayse yuy jibu sawaadul jismi safahatal fatawu su al fahmi révolution laa lay conseillé bu pacifique bu pacifique rek kon kenn du la mën a sikk ñi jàppaate du yi man xam naa leen <laughs> te bu jotee naa ne ña ne xool leen jàmbaar fu mu su jógee ñu kar ko kàccooree jóg ni kii jàmbaar la <laughs> kar ko ngir bañ mu jàll waaye lu dul yàlla da dig neen ah. moo tax defal si liggéey rek fi ñu la mën a la salaamu ala man ittaba'a al-huda